macha allah yàlla boole ñu fi ci Thierno Moule Sow mu baax mi doomi Mariama Camara mu baax mi kor Mariama Kap Mariama Moule mu baax mi setu jaari mu baax mi fa fa kala macha allah tey ndaje bi tey association Thierno Moule Sow yu nekk dakaar fii ñoo mobilisé tey ñu ne dañuy ñëw waxtaan si ak Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow nangul leen fa tabaar fa kala amul jot waaj ne ko ci xajal ndax doomi aadama bu demee ba sopp la du neen sa xam-xam sa njubbu sa mbaax sa yar sa discipline sa ngor moo la ko may so pour le perejo bari xiraani mën malaalo guturaani budu jeññe si pour juuti pour la yaa bonaani si pour lo rapidi pour la yaa si pour lo bawli reedu pour nga yaa makko boni naagoo ko tiitarow ko jëfew ko lu ko yàlla may mu ngi ciy fay doomi aadama yi di dimbali aadama yi moo tax association mobilisation yi ñu ne dañuy ñëw sargal Thierno Mouleye Sow dañuy ñëw nuyu Thierno Mouleye Sow dañuy ñëw toog waxtaan ak moom soo pour la raw nga say maam Thierno li nga yàlla def am lay doom juddu ci weer bi nga juddoo doom juddu ci macha allah sa tool bi si soxla en paysane. ceeb bi baraaji moo tax ma ne la ak ceeb baraaji la baraaji man de baraaji. neen aw jubi lillahi ah, mina shaytani rajim alhamdulillahi ah, rabbil ah, alamin ni ma lum yàlla. maam la soxla. fulaya meex delloo ma layla dinaa la sege ñaayara di faalaa du waxaale jabi ko. yàlla barika bii ko. jabima e jani kedawa duwa jabima keda simo saw saw saw saw sabulo jeeri Senhor. maam xanaa xamoo ni da ngay dugg doomu suuf la say maam daal yaa leen suuf say baay yaa leen suuf ma yaa ma suuf ma bi mu la juree alhamdulilah. asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokku internet yi mbokku téléspectateur yu TMS TV ñu ngi fii ci kër xalif général de Guinée bi Thierno Moule Sow le roi médecine traditionnelle the king of the king mu am nag ndaje bu am solo boo xam ne mi am fii ci. fajee tey nag association Thierno Moulé Sow famille pour le développement et l'entraide ñoo ñëw di ko delloo njukkal ngeen gis ci image yi nii suñu caméraman bi Bassène di jël euh, mu am nag euh, waxtaan bu am solo ci kanam dinañ ko fi amal léegi mais balaa sëñ bee génn rek dama bëgg a taataan euh, yenn ci kàddu yi nga xam ni ñu ngi fi ñëw ci ndaje li laaj leen seen xalaat nan lañu ñu gisee ndaje li kon damay xuus dem ci sama côté gauche ànd ak sama caméraman ñu avancé dem. sëñ bi ñu ngi leen nuyu. ci TMS TV di la doon laaj tur bi ak sant bi. ak fan nga jóge waaw maa ngi jaajëfal waa TMS TV yëpp di jaajëfal mbokk internautes yi di leen ziar bu baax a baax man maa ngi tuddu Mbar Diouf nekk commissaire ci association Thierno Moule Sow Daroul Laye Family man xam fan nga jóge. waaw maa ngi dëkk Fatick. Fatick laa Fatick nga dëkk waaw fa laa jóge ci suuf incha allah waaw. tànk yi fii lan la. waaw ñëwoon fii pour ziar sama sëriñ rek ànd seek sama association ñun ñëpp ñu ñëw donc euh, ziar sëñ bi donc waxtaan moom aussi ak moom li nga xam ne moom ci la ñuy liggéey bi nga xam ci la ñuy yëngu ci bi association bi loolu moo nekkoon suñu tànk tey quoi. lan nga ñu mën a wax ci sëñ bi. waaw sëñ bi nag moom wax ci moom nag euh, dina jafe parce que mbaaxu nit moom boo ko dee wax maanaam mënoo koy wax ba doyal sëñ bi dafa nekk koo xam ne vraiment ñun donc mun na ne moom fii kër gi université la moom daf ñoo jàngal lu bare bare ñu jël ñu jàngal ñu jël ci moom vraiment ay yar yoo xam ne macha allah am na solo lool. mu nekk nit ku baax nit ku yaatu nit ku am yërmaan la ci doomu aadama nit ku dimbali askan wi macha allah muy def te yàlla rek a tax. vraiment liggéeyam aussi bi askan bi am solo lool lool comme ni ñu koy waxee rek bu fi nekkul woon moom maanaam nekkam ci adduna bi moom am na solo lool lool lool ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñoo ne ci association bi vraiment sentir suñu bopp ci wetu sëñ bi bi vraiment fi mu ñu jëlee ak fi ñu jax si nii tey am na solo lool ñu ko ci sant di gërëm macha allah. waaw ñu jël borom toilette bu yànji bi macha allah di la laaj tur bi ak euh, sant bi. waaye yar ak teggin laa tudd ñu gën koo xam ci Cheikh baay maa ngi dëkk Kaolack waaw waaw sa dëkk fa laa ci Kaolack. waaw ah, maa ngi dëkk Medina Cheikh Ibrahim yaakaar naa boo gisee Medina Medina Baye lañ dëkk ñu buggoon xam tànk yi fii. waaw tànk yi fii alhamdulilah rabbil aalamiina Corno suñ sëriñ la ku baax la. li muy def li li ñi di gis ci vidéo yi loolu moo fi nekk leneen nekk fi mu ngi dimbale jaam yàlla yi ci métier muy li nga xam ne moom lay def muy faj. macha allah mi ngi faj nit ñi ci biir réew mi ak ci bitim réew waaw loolu moo waral la suñ tànk fii nii dañoo ñëwoon kontaan ci li muy def lool ah amoon ab euh, addiye daal bu ñu andi andi woon ñëw andil ko ko dajeek mbooloo mi nekk fi macha allah muy association bi waaw association bi ñoom it macha allah boo leen gisee rek gis nga corno waaw macha allah ñoom daanaka li nekk ci sëriñ bi rek mu nekk ci taalibe yi wallahi kontaan lool lool lool waaw kontaan nañ trop trop sax macha allah. ñu lay jaajëfal bu baax. non macha allah yàlla guddal fan wi macha allah dëgëral cër yi bu baax a baax a baax a baax mi ngi dimbale askan wi bu baax te am na solo ci société bi bu baax a baax a baax a baax waaw te li may wax nii yaakaar naa ñëpp teg nañ ci seen bët li muy def lu leer la waaw macha allah ñu ngi kontaan bu baax a baax di leen gërëm yéen it reportage yi ngeen def fan yi français bi anglais bi nit ñi kontaan nañ ci trop man ni ñaa ngi may jox euh, kii heure bu nekk naan remercier gars yi. waaw léegi ñu bari daal ñu ciy gis seen bopp macha allah. soxna si ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax. di la dalal ci TMS TV di la laaj tur bi ak sant bi ak fan nga jóge waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant maa ngi tudd soxna si jógee Nord Foire. Nord Foire Nord yow sama dëkkandoo. waaw maa ngi dëkk 26 en face Nord Foire. dëgg la waaw. ñu buggoon xam tànk yi lan la. président bokk ci association Diana Moule ñëwoon fii doon ko ziar si doon ñëw daal pour gën a nuyoo si gën koo xam daal parce que bii mooy deuxième fois ma ñëw fii dégg ñëw pour seet ko. sûrement yaa ngi seetaan ay vidéo am lan ñu mën a wax ci Thierno. waaw ça fait deux maa ngi seetaan ay vidéo mais daal macha allah du ko jàppee vidéo yi tamit moo tax ma jàpp ko parce que moom laa seetaan gis ci loo xamante ne lu ma doy la. ñu ngi lay nuyu di laaj tur bi ak sant bi ak fan nga jóge asalaamaaleykum wa rahmatullah man maa ngi tudd Mariama Diassi euh, dëkk si Kamba mais Wakaam laa nekk foofu laay liggéeyee. ñu bëggoon xam tànk fii ci kër gi lan la. Euh, sama tànk fii si kër bi dama ñëw ziyaar sëriñ bi parce que maa ngi bokk si la famille Moule moo tax ma ñëw pour mu mën a xam man maay kan mu xam ma mu xam ne man tamit maa ngi suñu njabootam yi moo tax ma ñëw fii. gis nañ ni sûrement da ngay seetaan sëñ bi ci à le les vidéos nga ñu mën a wax ci Thierno Moule. ah macha allah macha allah liggéeyam bi rafet na lu muy def macha allah lu muy def moom macha allah ko ku ko xamul rek moo xamul mais boo xamee di nga xam ne yàlla moo ko may te mun na lu muy def mooy papp sëriñ mooy papp jinay macha allah naa di ko ñaanal gudd fan ak wér la yàlla na ko yokkal xam-xamam bi. ñu ngi lay nuyu di la dalal ci TMS TV di la laaj tur bi ak sant bi ak fan nga jóge waaw maa ngi tudd Nani Ba Fall waa dëkk Casamance bi ñoo na. kon Casamance nga jóge waa Casamance laa ñëwee ne. alors ñu buggoon xam say tànk fii ci kër gi. waaw ñëwoon juste pour ziyaare sëñ bi waaw assister ñoom bi macha allah alors xam naa yaa ngi seetaan sëñ bi ci ay video am lan nga ñu mën a wax ci Thierno Moule. ah waaw Thierno yàgg naa ko suivre wax dëgg yàlla macha allah euh, vidéo mi moom euh, bu ma koy seetaan damay am mbégte kontaante parce que euh, dëgg dëgg lay wane. da nga ciy gis li nga xam ne mosoo koo gis bi nga xamee sa bopp te lépp dafa leer macha allah looloo ma gën a frappé ci moom. te lépp lu muy def daf ci jiital turu yàlla ci jiital ak yonent bi waaw moo tax ma sopp ko bëgg ko dëgg yàlla. ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi lay nuyu di la dalal ci TMS TV di la laaj tur bi ak sant bi ak fan nga jóge maa ngi tudd Ndeye Fall maa ngi leen maa ngi tudd Ndeye <laughs> ngi jóge Mermoz. Mermoz nga jóge. waaw alors ñu buggoon xam lan mooy sa tànk fii ci kër Thierno Moule Sow. Thierno moom lañ koo yàgg seetaan te li muy def dañoo gis ne daal mu ngi def liggéey bu am solo di jàppale doomu aadama yi te tamit li muy xam-xam yoo tamit ku ko ko xam ni xam-xam bu wér la yor tamit looloo tax daal gën koy seetaan tamit bëgg ko bokk ci association bi ba mën a ñëw fii tey ji comme yaa ngi koy seetaan lan nga ñu mën a fooy daanelee rek lan nga ñu mën a wax lu tuuti rek ci sëñ bi ah moom soo koy seetaan moom fan yii mujj yi ma koy seetaan moom damaa feebaroon moom waaw ah, ñaari fan yii mujj yi damaa feebaroon ba yëg ko sax waaw ah, soo koy seetaan moom di nga yëg sa bopp da xam ne yow mi am na lu nekk ci yow mais du manifesté wu mais xëy na soo ñëwee ci moom tamit dina génn waaw même pas sànq bañ taxawee fii sax maa ngi doon yëg sama bopp bu baax a baax a baax maa ngi xam ne man mii nekkuma. mais sant yàlla bu baax ñu ngi ñaan yàlla rek ba keroog yàlla dañu booleek moom dajaleek moom rek bañ faj ñu rek. merci.

mapendo pour mapirunangi baba jinne karamo ko jinne kimo ceerno mulen so lui de l'homme des l'homme l'homme de titre foncier je te dis l'homme de clôture et l'homme de fondation l'homme de secteur et l'homme de décollège l'homme de concorde Je te dis, Thierno aussi, il était un fleur. Je n'ai pas Sénégal, mais toute Afrique, on va l'arroser par notre sang. Je te dis, être meilleur. Être meilleur. Être très bon. Être meilleur. Très efficace. Très agréable. Mais être meilleur parmi les toutes les meilleurs. Voilà, c'est le gars, c'est le Thierno Moulin Sol. Tout de manière. Si nous avons général de Guinée, di Thierno Moulin Sow, ñun ñu nekk ak moom fii muy Euh, faje ñuy gis appel vidéo fépp ci àdduna muy faj appel vidéo kon damay wax ni le monde entier ñoo teew fii dañu koy sant nag di ko gërëm di ko bàyyi ak yàlla suñu borom parce que man bi ma commencé nekk ak moom ba léegi heure bu ma ko ne sëñ bi yaa bëri doole yaa bari xam-xam mu ne ma yàlla moo bari xam-xam yàlla moo bari doole kon lépp daf ko delloo suñu borom te ñi fiy ñëw aussi ku ñu ci interviewé tànn la micro dalay wax ni man de xawma Thierno waaye ci vidéo laa koy seetaan waaye lu tax ñun ñëpp ñu riir ñëw fii moom waxu yàlla rek la lay wax kon yàlla ku ci ne mooy yoonu siraati xal mustaxima Thierno nag dañ koy ñaanal suñu borom defal ko gudd fan yu bare bare bare baree bëri. asalaamaaleykum waaw maa ngi leen di leen di leen ziar yëpp. waaw di sant bu baax baax naam. di ziar suñu sëriñ bi. nga leen xalifa général bi kii bi. xalifa général pour ñu mën seen xalifa général bi moom pour ñu kii bi. waaw di ko sant bu baax a baax. l'enterré des enterrés balu laa moo tax ñu ñëw sabana mbemba ye balu laa mbemba kurani mbemba sangaranga tukara kira masa folo ya wallahi wallahi acerna ha cerna ha cerna mo jata pulo ko ɗum mbiyara e mural ma mi anda curno loy halat so dundu dara ceerno loy halat rien rien du tout maam cerno li la yàlla def cerno looy xalaat looy xalaat looy xalaat demal bul gestu cerno booy dem bul gestu kuy gestu da nga ragal cerno macha allah ragaloon def yàlla la may cerno moo tax ma ne laa cerno ma ne ci oto bi ne aw jubi lillahi mina shitani rajimi alhamdulillahi ah, rabbil alamin ni ma yum yàlla la bi ko Thierno lycée la nga clôturé la nga fondation la nga secteur la nga de collège la nga concordo billahi wallahi jamaa si jeena mi sa ko ma ko aro le pato ya sa jamaa wo et meilleur et très bon être meilleur et très efficace être meilleur et très agréable être meilleur parmi de toutes les meilleurs c'est toi Thierno Moule waaw ci muy Karim Ba waaw xaar dana ci sa ñëw ziar sëriñ bi allah di ko sant bu baax a baax. maam baax na. waaw lu bëri la. macha allah. macha allah. parfum la. waaw da ngaa bëgg parfum bi seen la macha allah parfum parfum yi waaw parfum la ay mbaxana la waaw am solo waaw mbaxana la dara aw solo Nigéria la jógee mu nekk man dañuy ñëw ba pare bay ñëw am loxo waaw waaw jaawale du ko def daal. li dafa am ay mën fa la ah, di nuyu tamit ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk ci association Thierno Moule Sow Family Daroula international bi am ngeen ñeneen tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk international bi euh, Ousmane Samsi Samarou si jiite ko aussi ñoom it ñoo ngi leen di suivre bu baax di leen nuyu di leen ñaanal jàmm vraiment kontaan bu baax seen ndaje bi tey kii tamit di ci kër gi. macha allah di suñu wëllëree du ku baax moom macha allah Cheikh Ba yar teggin gis ngeen Kaolack boo gisee ñu dem fa sax yàlla moom moo taxoon ñu dem Kaolack mooy luuma bi ñu demoon organiser ko Kaolack dem fa jàppale waa Kaolack moom ci moom lañ jaare woon macha allah moom it tey mu ñëw indi indi indi addiya bi indi cadeau yu bëri vraiment lii bëri na trop yéen it ngeen indi fi xaalis bu bëri jox ma taalibe yi kenn ku ne génne xaalis bu bari jox ma vraiment kontaan naa bu baax a baax. di leen ñaanal yal na leen yàlla defaral jàmm yokk seen xéewal kër gi nag fii daaru laaxi la daaru laaxi nag kër yàlla la maanaam fii lu fi waay def rek sa bopp nga ko defal fii joxe yokku la ñàkk jëriñu joxe yokku loolu suñu borom moo ko def yàlla nag mooy maye waaye yàlla may na ma li nga xamante ne macha allah man képp ku ma képp ku ma naajal ma keral la waaw loolu suñu borom moo ko def loolu maanaam loolu bàyyi foos la loolu yàlla moo ko def yàlla nag mooy dogal lu ko neex. def ko ci ku ko neex te du tàggu kenn waaw man nag li ma yàlla def def na ma ko ba pare macha allah loolu jaam munuñ ci dara saa su ne ci kanam la jëm rek maanaam aw ma tànku ginnaaw man tànku kanam rek laa am macha allah euh, su ma benn taalibe tonton soo Cheikh Umar mag la kilifa la parce que làkku na la war na làkku ay soixante-dix ans mu ne ma Thierno ma ne ko naam mu ne ma taalibe bu ànd ak yow avancé wul mu ne ma na dellu xoolaat boppam. waaw. képp ku ànd ak man yokkuwul. na tëju néeg xoolaat boppam. parce que dafa dëgguwul. waaye boo dëgguwee ànd ak na mu le dinañ la xoqatal de. di di nga am ay dëj di nga di nga jéggi ay dëj. waaye booy jéggi dëj yi maanaam du saf. waaye boo dëggee rek da ngay dem loolu suñu borom moo ko def. ndax tey ñi ma doon jéem a daaneel ñu bari tey daanu nañ. te man ba tey maa nga ca kaw. macha allah macha xam nga ñu bari dañu leen di waxal bu ñu deewee dañuy wax ñoo def li ñoo def lee na mu leen nag deewul moo ngi dund di def li nga xamante ne kenn mënu ko dindi kenn mënu ko miim ah, waaw kon nag suñu borom euh, may na ma lim may jox yàlla day maye de te yàlla bu maye du gëstu nit nag mën na la may tey suba bu la meree nangu lépp. wala nit jàppale la tey suba bu la meree koñe la gis nañ ko fii ndax def nañu ko du xaaju jeex waaye ñoo ñu koñe ñu ñoom ñoo mujj koñe seen bopp ànd nañ ak ay nit ñu nekkoon fi jóge fi di ñu jéem a xeex waaye tey ñoom ñoo torox ba ñëpp gis leen ba bëgg a ñëwaat ci kër gi aussi bëgg a daw ñëwaat fi loolu am na parce que da ngay ànd ak Thierno Moule Sow sa affaire commencé baax rek nga jóg nga beew nag soo bewee nga yaakaar ne yow yaay yóbbu Thierno fekk xamoo Thierno moo lay yóbbu bu ko defee nga naagu lu ñu wax ku naagu daagu ku daagu ñu raw la man maay sëriñ bi nga xamante ne suñu borom fu ma ko woo mu uyu ma actuellement parce que bëri na tey ay borom grand mbubb yi nga xamante ne dañuy toog yow mii yaa leen gën a jege suñu borom ñii dañuy njaaloo ñii dañuy tox ñii dañuy moy ñii dañuy bokkaale te yàlla bokkaale la gën a bañ mu Moule du bokkaale man suma dund suma ma laay fi yàlla la man yàlla laa jiital man du ma bokkaale sànq gis ngeen Moustapha wax na ko fi dañ ma naan yow macha allah am nga doole ma ne leen aw ma doole suñu borom moo am doole. gis nga Iblis. dafa naagu maanaam jinne la dafa liggéeyal suñu borom ba yàlla jox ko ay garaat may ko kattan may ko doole. yàlla wàcce maam aadama ne ko iblis ñëwal sujootal maam aadama iblis lànk naagu rëy yàlla rëbb ko mu ne yàlla na ko fay lépp lu mu ko liggéeyloon yàlla fay ko lépp lu mu liggéeyloon yàlla ne ko fay naa la àdduna waaye àllaaxira doo am dara doo laal nii ni ngeen xam nga loolu dafa doy waar te moom maanaam liggéeyloon na suñu borom ci la ñaan yàlla may ma doomu aadama yi bañ ma gis moo tax jinne du ko ne moo koy gis dégg ngeen kon kon yàlla maanaam euh, kenn du kenn du yëkkati maanaam kenn du màggal sa bopp ci kanam suñ borom yaa ngi de dégg gis xaw Firawna aussi dafa dem ba jàppee boppam mooy mooy yàlla bu daan dem àll gars yi ay tabala lañuy tëgg dafa daan xëy lekk xaaju giléem te defe naa ne fii tey ku fi jox ñaari kilo yàpp mënoo ko jeexal te moom dafa daan xëy di lekk dafa daan xëy dafa daan xëy di lekk xaaju giléem moom it muy mu dem ba beew comme li ma yor rek yàlla jox na ma xam-xam may na ma pouvoir lu ma wax mu am mu dem beew ba mu béyee nag def boppam yàlla yàlla rëbb ko yàlla ne nag dinaa la toroxal sa sëtaati sët dañ lay gis maanaam dinaa la weer ni géejje te doo yàqu ba tey moo ngi Égypte boo demee Égypte danga koy gis yàqawul te tey ku fi faatu buñ la dencul ñaari fan ñetti fan nga nëb yax yi sax yi ñëw kon xam nga ne suñu borom kenn du xeex ak moom yàlla nag lu mu la mën a may may may may da ngay xam ne moom moo la may moom moo la jox tey bari nañ nga xamante ne suñu borom daf leen jox waaye dañoo fàtte yàlla yëkkati seen bopp yàlla wàccee leen man nag li ma am suñu borom moo ma ko jox mu neex nit yàlla la mu naqari nit yàlla la loolu loolu loolu nit mun ci dara ndax nag waxal nañ ma lu ne ay jàpp nañ ko dañ koo tëj ak yàq der ak fen ak di duul ak di def lu ne waaye zéro tout le temps je chaque jour maa ngi avancé tey laa gën a am xaalis maa ngi sant yàlla déjà jënd naa benn terrain quarante cinq millions pour clinique bi benn trois cent cinq mètres loolu pour fu may fajee jënd naa ko quarante cinq millions laa ko jëndee waaw ñii fekkee nañ quarante cinq millions laa ko jëndee pour clinique bi ndax xaaruma état xaaruma gouvernement bu ñu yàlla dimbalee bu kayit yi génnee dinañ fa tabax def ko daara clinique kon vraiment di sant yàlla bu baax di leen ñaanal jàmm li ma leen di conseiller mooy euh, boo leen ànd ak cerno na nga raxas sa xol na nga dëggu ci ànd ak bi nga ànd ak cerno soo ko defee du pertement mais boo dëgguwul ànd ak cerno mu ne pertement la bie boo nga wàññeeku mais boo ànd ak cerno nga gëm ko dëggu macha allah loo joxoñ mu dagg loo laal mu yomb parce yàlla mooy maye nag te yàlla ba muy bind asamaan ak suuf tàgguwul papaay kenn tàgguwul maamu kenn tàgguwul kenn moom mooy le meilleur moom mooy kenn ki kiiwul kenn autorisation kon moo xool li ko neex def ci ki ko neex moo ñëw créé Thierno Moule Sow la xalif général des jinne le king of the king waaw Thierno nag mooy sëriñ bi nga xamante ne du ma mag aw ma 40 waaye maay sëriñ bi nga xamante ne maa jommil sëriñ si jommil jinne yi waaw maanaam képp kuy sëriñ ci kaw monde bi bàyyi nga ma bàyyi nga ma xel rawatina samay génération kon nag vraiment euh, bu yàlla defee nag taalibe yi dajaloo ni association Thierno Moule Sow Daarulahi Family ñëw ziar seen sëriñ Thierno Moule Sow vraiment wàcc ngeen kontaan naa yàlla na yàlla defaral jàmm yàlla yëkkati leen parce que association bi tam am na ay kilifa yu fi ne am na ay mag. calculeel suñu mama bi macha allah kilifa la mama Tunkara calculeel suñu mama yaa ngi fi macha allah mama cocoog yooyu Safiyatu ñoom soxna awa awa awa awa awa kan ñoom ñoom euh, soxna nday marem ñu bëree ngi fi ay kilifa lañu calculé euh, ñoom maam Thierno ñoom mbaar ak noonu macha allah ñoom tonton Ndiaye gis ngeen waaw parce que yàlla euh, mooy boole te yàlla yàlla boo xoolee mag ñi baax ñu fi nekkoon ñëpp. li ëpp ñu doon àndal ñoom ñoo leen doon mag ci zaahir kon nag bu leen yàlla mayee ki nga xamante ne suñu borom nangul na ko suñu borom déggal na ko ba lu mu ñaan suñu borom def ko ah bu nekkee nag wax dëgg yàlla nit nga téyel kooku ndax man lu ma lay xamal lu dul yàlla ak yonente bi ah, waaw macha allah vraiment di kontaan bu baax ci ci seen ñëw bi ngeen ñëw fii dèjà loolu nuyoo la rek d' abord dama leen doon nuyu d' abord macha allah di kontaan tamit ci addiye bi macha allah xaalis bi bari na trop waaye nag man affaire bi du xaalis bi man gëm la ak dëggu ak bëgg loolu kese la waaw man foofu la man man du xaalis ndax nag sant suñu borom ñun am nañ am nañ ay jinne yi nga <laughs> xamante ne ay taalibe lañu ñoom dañ ñuy indil addiye macha allah. waa loolu nuyoo la di sant suñu mbokk mi jóge <laughs> Kaolack. Euh, macha allah yar ak teggin. macha allah macha allah moom it rëyul bu doon ñeneen mun nañ rëy ak yooyu mais dafa ñëw nangu. macha allah signé di apprécier. dëgg la yal na yàlla defal la jàmm. amiin li ñu dafa rëy man sama laay sama dund alxuraan. alxuraan la dëgg la wallaay dëgg la wér. kontaan nañ bu baax loolu nuyoo la rek. macha allah macha allah kontaan nañ. li ñuy wax innama amroho. waa da ngeen di toog macha allah. taalibe bu xasee ba dugg fii rek ah moom seen aajo faju na waaw suñu borom moo ko def kun fa yakoonu kun fa yakoonu am amruhu iza arada shay'an an an yakulu lahu cerno mule kun kun fa yakoonu lépp lu ma ne kun suñu borom ne fa yakoonu waaw loolu moom defe naa ne yéen xam ngeen ci dara ah waaw association bi donc am na fi benn enveloppe bu nga xamante boobu lay ñëw jébbale sëriñ bi euh, valeur de trois cent mille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 sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér sëriñ bi yal na nga fi yàggate wér yal na nga fi yàggate wér sëriñ bi yal na yàlla may doole ak kattan ak mën-mën dëgëral sa taxawaay ñu ngi lay ziar bu baax baax sëriñ bi ñu ngi lay ziar ci liggéey bi ngay liggéey ci àdduna bi ñu ngi lay ziar sa xeex ci noon yi ñu ngi lay ziar ci sa xeex ci jinne ñu ngi lay ziar ci sa xeex ci doomu aadama yi ñu ngi lay ziar ci sa xeex ci dimbali néew ci doole yi ñu ngi lay ziar bu baax a baax ci ndimbali bi ñu ngi lay ziar ci liggéey bi di la biral na yàlla euh, sëriñ bi ñun dang ñoo defar ñun waa association bi dang ñoo defar sëriñ bi dang ñoo doole dang ñoo kattanal dang ñoo dëgëral dang ñoo fital dang ñoo yar dang ñoo fital dang ñoo yar ndax association bi ko ci ci kopp ci nekk rek amoo dara loo ragal amoo dara loo tiit xalaatoo dara tiitoo dara xiifuñu maruñu fépp ñu la woore nga wuyuñu lépp ñu soxla woo la nga fekk si ñu képp ku dugg ci paneel bi nga am loo wax boo duggee rek seet waa panel bi ñuy doxalee rek nga regle ku ci naka boo ñëwee boo fi fekk yar bi nga fiy fekk rek dina tax yow li nga indaale safaan bu mu munti doon di nga delluwaat ci ginnaaw ànd ak waa association bi loolu yëpp yow la yaa ñu yar yaa ñu defar yaa ñu dëgëral ñu ngi lay sant sëriñ bi ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal gudd fan yan na nga fi jërëjëf jërëjëf jébbalu ci tur as addiya pour sëriñ bi macha allah bu jox al seeni addiya saa su ne ak taalibe yi fii aussi vraiment kontaan nañ Euh, waaw macha allah ku baax la macha allah boobu kam bu mu commencé woon cotisation rek Mama Tunkara si la cotisé année bi yëpp la cotisé benn yoon. dana fi yàgg de moom dana fi yàgg dana am wér. waaw dana fi yàgg. incha allahu dana dana dana lekk njëriñu njabootam incha allah xaw ma dem na màkka xaw ma demul waaye njabootam dinañ ko yóbbu màkka. macha allah macha allah. waaw loolu moom macha allah association bi dafa uteeg yeneen association yi association Thierno Moule Sow famille Daarullahi maanaam baatin moo ko lal baatin moo ko ëmb defe naa ne waa association Thierno Moule Sow famille Daarullahi bu international xam nañ ko da ngay gis ku nekk bitim réew am jafe-jafe kayit dugg ci association bi rek am kayit da ngay gis ku nekk ci bitim réew yàgg fa loolu mun mënoo am liggéey da ngay dugg ci association bi rek am liggéey maanaam da ngay gis ki nga xamante ne day am ay feebar ay jafe-jafe du am jàmm jinneem bi di ko sonal dangay dugg ci association bi rek am jàmm kon association bi association la ci biir association yi te association bi dafa am ay jinne tamit yu nekk ci biir association yi loolu foog mu leer loolu foog mu leer kii bokkul ak association fala fala bii association la bi nga xamante ne macha allah baatin moo ko lal baatin a ko ëmb te képp ki nga xamante ne da nga ci dugg dëggoo tamit danga nga ci génn te booy génn doo xam nooy génne ñëpp nag ñu am na anciens yi ñoo ngi fii am na ñu nekkoon ci yeneen association ba tey ñoo ngi fi ñoom soxna Ndeye Marème Ndiaye ñoom Awa Kane macha allah parce que man du ma ànd ak défaillant du ma ànd ak ku dëgguwul dama bëgg ànd ak nit ki nga xamante ne ku dëggu bu ko defee ñu jëm ca kanam ndax nag teraangay àdduna maanaam euh, te àdduna àdduna yëpp teraanga yàlla bindewuñu fii pour ñu sonn wala ñuy torox dañu bind pour ñu happiness dund jaamu yàlla suñu deewee dem aljanna kër yi baax yi pour ñun la oto yeeg lépp lu baax doomu aadama la ko yàlla sàkkal macha allah kon nag bu leen yàlla maye ku mel ni mu leen Sow jege suñu borom na nga dëggu ànd ak moom nga jëm ca kanam loolu la vraiment kon ngeen gën a góorgóorlu ci association bi maam Thierno ñoo ngi leen di sant ñoom Mbaar ñoom al Alseeni ñoom tonton macha allah yéen ñëpp ah membre euh, ñi nekk ci association bi yëpp vraiment di kontaan di leen ñaanal jàmm doo leen ko rëccu nag doo leen ko rëccu de boo leen àndee dëggu rek macha allah da ngeen raw seen i maas. sëriñ bi moom day resté connecté ñu sarax ko ngir yàlla ndax mu wax ak sëriñ bi parce que moom ci ñun la bokk te moom Côte voir la nekk. waaw macha allah kooku tam si taalibe la bokk dafa nekk extérieur nag Côte d'Ivoire la nekk Thierno la taalibe bu déggu la mu ne dafa sàkk ñaan si yow. incha ñu ngi koy ñaanal. waaw waaw après nga woo ko ci kanam. waaw après ngeen woo ko dégg nga ma ma pare fi kontaan naa Mama Tunkara vraiment di kontaan di leen ñaanal jàmm euh, dangay gis yenn taalibe yi dañuy ànd ak yenn sëriñ yi dara tous. da ngay daw ba dee tuus doo am yàlla doo am yonente gis nañ ko fi ba taay ci dëkk bi lañ dëkk on on connaît bien mais na boo ànd ak moom da ngay avancé da nga da am yàlla da nga am yonente <laughs> da nga am yàlla am yonente man kenn man kenn du ànd ak man di torox boo toroxee xoolaatal sa bopp da ngaa dëgguwul parce que man defe yaay du ma leen ñaanal ku dëgguwul duma ko ñaanal yàlla nag mooy maye actuellement suñu boroom daf maa may jaam munu ci dara léegi nag gannaaw yàlla may na leen chance ba ngeen nekk sama taalibe da ngeen di profitoo ngeen joxe du xaalis bi na nga joxe sa xol na nga dëggu na nga am fas-fas na nga joxe sa doole bu ko defee nga wàcc nga jàll man loolu laa leen di conseiller man namuma xaalis namuma dara man lu ma bëgg ma am ko barke alxuraanu karim namuma tuus

am ngeen sëriñ bi nga xamante ne macha allah bu jege suñu borom bu leen di yóbbu si suñu borom seen aduna tamit day baax ndax nag sëriñ bu la mënalul fii ma ne bu la mënalul fii mënalul a fee bu sa bañ di metti sëriñ mënu la mënu la jox parastama bu luy seddal sa bañ kooku boo leen demee kanamu suñu borom boo ko xetteelul du la xettali nañu bañ a nax suñu bopp dofuñu boo gisee nen danga naan ku gis nen ban sëriñ mooy wax ak jinne yi fii ban sëriñ mooy tuubal jinne yi am na am na numéro wala numéro am na wala amul the king of the king the ñu ngi sant suñu sëriñ bu baax a baax a baax the king of the king borom boloya saaya borom samsi samaroosi di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér di ko jox suñu wàccuwaay di bëral nuyoo aussi suñu waajur gu baax googu di soxna Mariama kamara yàlla guddal fanam gën ko fee bàyyi donc di la sant bu baax man commissaire ci turu association bi ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ñun amuñu sa fay ñun amuñu sa fay dafa am loo xam ne danga ko def ci ñun parce que ñun da nga ñoo yar man de chaque fois dama leen ne ñun suñu association bi ñun université université la ñun fii dañu fiy jàngee am lu bëri ñoom bëri te ñu jug nañ ci association bi bañ fiy dugg si am na am na nu mu meloon bañ ñëwee am na fekk nañ fi leneen loo xam ne wuta naag ba ñuy ñëw kon nag ñun dañ ciy sant bu baax a baax a baax a baax a baax parce que vraiment gis nekk ci association di waxtaan bëggante te gisantewu leen loolu macha allah ku am baatin dong moo mën loolu te lépp yow la kon ñu la ci sant bu baax a baax a baax a baax a baax ci am kër gi am na organisation macha allah nit ñi bëggante nañu ñëpp aussi ku ci nekk ci wàll wa nga ne yaa ngi ci xar sa tànk dube yi waaw kër gi nag bu ñëwee ba si ba fii parce que dafa am ñoo xam ne taxaw nañ ci taxawaay bu rafet lu dale ci président maanaam wax administration bi yëpp membre yi yëpp ku ci nekk aussi xam aussi cër bi nga am si kër gi xam na kër gi kër kilifa la euh, kër Thierno Moule Sow la te Thierno Moule sew moom kenn la ci àdduna bi kon donc euh, bu ñu amee ku mel ni moom dañ ko war a jàpp fonk ko man dama ne chaque fois damay ne man sama bopp damay ne suñu borom daf maa baaxal parce que suñu borom bu la bu naree baaxal daf lay boole ay nit ñu baax kon man damaa gëm ne suñu borom daf maa baaxal comme ni mu leen baaxalee ba mu demee ba boole ñëw sëñ ñu mën a taw dañu war a xam ne daf ñoo baaxal kon na baax googu ñu mun ñu baaxal dañ ci war a profité waaw macha allah di jaajëfal ñëpp. mbokk yi maa ngi leen di nuyu sa tur ak sa di leen baalu àq di leen baal àq sama wax ji ma bëgg wax nag wax dëgg yàlla lu ma yàgg bëgg la lu ma yàgg bëgg la du tey rek parce que sëñ bi defe naa ne depuis 2017 maa ngi maa ngi ànd ak moom fu mu nekk ma nekk fa fu mu taxaw dinaa fa taxaw te ba ilaa yow mi diin loolu laa fas yéene ndax euh, nim ma def la li olof di wax naan soo gisee nit ki na mu la def na mu la def a tax sëñ bi dama yoroon sama malaat boo xam ne xale bi dem na ba xàmmeetul jëlal lekk bi nga dugal ko sa biir gémmiñ wala jëlal ndox mi nga naan ko dañ ko daan yeew dama daan jël loxo yi yóbbu ci gannaaw téye ko jonkan comme ni ma ni kiy def ma téye ko noonu ba bërset dama daan sonn bu bëgg a dee ma nekk ci këram ñetti weeru yàlla chaque jour maa ngi foofu pour ma jot ci moom sax problème la pour ma jot ci sëñ bi problème la kon gis naa fa lu bëri xam naa fa lu bëri su fekkonte ne awma benn benn euh, preuve boo xamante ne gis naa ko ci moom kon du ma fa toog lu toll noonu bàyyi sama kër bàyyi sama njaboot bàyyi sama yaay mais macha allah keroog ba ma jàppanteek moom mu wax ma la ma wax ma tontu ko la ma ko tontu macha allah tey xale boobu moo may dimbali ci kër gi. man ak moom rek ñoo nekk yaayam dafa génn àddina gaañu bàyyil ma ko fi. bi ma ñëwee ne damay fay sëñ bi ñu waxante ba d'accord li ma ko gën a jàppee te ba ilaa yow mi diin loolu laa koy jàppee dama ne ko sëñ bi mu ne ma naa man ko man de mënumaa fay cash est-ce que mën nga ma ko defal ay tranche mu ne ma amul benn problème. ma ne ko waa baax na léegi dinaa xool lu ma am ma jox la mu ne ma waa ma jël la ma am jox ko li ci des ma ne ko fii ak ñaar wala ñetti weer dinaa ko mottali yàlla dara teewul. matul weer la ma ko war a jox yëpp mët ci man ma jël beneen tranche ñëw di ko jox mu daan ne ma soxna awakan ma ne ko waaw mu ne ma beneen tranche bi ci des def naa ko addiya yonent bi ma ne ko mukk ma ne ko man li ma réccu mooy li ma la wax ne la waajñil ma wala defal ma ko tranche man loolu laay réccu mu ngi nii di ma dégg su dee li ma amul dina ko démentir léegi ma ne ko du ko jël mukk mu ne ma mukk man maa la ko jox ma ne ko mukk duma ko jël sama gàcce kañ mooy li ma wax ne la kiiwal ma defal ma ko ay tranche man loolu laay regretté dama ñaan yàlla di am dara sama sama as di ko indi fii ci kër gi. sëñ bi ne ma waa léegi paas moom kon di nga ko jël man ko wallaahi du ma ko jël ñu nekkee noon nekkee noon nekkee noonu la mu def la mu def ci sama doom man xam naa ko ñu am na ci ñoo xam ne tey jii nekkoon nañ fi président association bii woo nañ ma ca Europe. ne ma ana sa xale bi ndax ñoom ñëpp dañ ma yërëmoon ma ne xale bi te bi ngi fi tane na ma ne ko tane na mu ne ma est-ce que wér na ma ne ko wér na de mu ne ma su ma sañoon de gis ko ma ne ko ah ma ma ne ko xaaram naa la ko filmer wan la ko fil kii bi image bi mu ngi fi sama téléphone ma filmer ko envoyé ko mu ne ma lii de ku ma ko waxoon du ma ko gëm ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Kër na dama faa fekke lu bari ñoom nday ma rek ñii bañ fay ñëw fa lañ ma fekk. kon ñu delluwaat maag Cerno maag Cerno maag Cerno bu mu ba am bës ma am fii njàqare bu doy waar ndax sama doom dafay jàng ci école bu cher sama mag di ko fayal ñu dem ba ci biir sama mag feebar sama mag boobu bi mu feebaree moom ma njëkk wax ne ma bul demati ci Cerno Mule ma ne ko fa laay tànk sama ruug yi ma nga fa dinaa dem mu ne ma du du faj xale bi ma ne ko toogal yow yaa ngi ci Europe xamoo li xew ñi nekkee noonu nekke noonu mu daal di dagg loxo bi loxoom yàlla dara teewul inscription jot ma jaaxle lool xaw ma nu may def ma ñëw ci sëñ bi ma indil ko bulletin inscription yi man ko dama bëgg nga ñaanal ma ci bulletin yii yàlla jàppale ma ci sama doom ji ndax baayam dafa génn àddina bàyyi ma moom sëñ bi xam nga lan la ma si tegal ñaanalu ma de dafa compter xaalis bi cash yéen nag may dégg xaalis bi cash la ko compter ne ma demal fayal sa doom ba léegi nii. wo woo alseeni mi defe naa moom ma woo téléphone ne ma na fi xale bi ñëw xale bi ñëw mu sukk ci ay tànk mu tàllal loxo tàllal loxo ne ko dama euh, euh, euh, ma ñaanal la macha allah kon man aw ma fayam yàlla bi nga xam ne moom moo am sa fay yàlla na ma la yàlla fayal. sama mag dee sama sama jëkkëru mag dee sëñ bi yónnee délégation suñu kër mu def enveloppe bu mag xam nga yéen a ngi wax enveloppe enveloppe bii ñu ko jox tey wallaahi ci nit ñi la jëm mu def enveloppe am yabal délégation ñu ñëw te moom mii moo naroon ñëw ci dem na ba dernier moment mu am ngànt si la ma kii woone ma waaw patient yi bëri ci la ma woone ma ah nit ñi dañoo bëri fii mais ñi ngi ñi ah, am na ñuy ñëw délégation baa ngi ñëw te mënoon na ko cee bañ a fekk kon man li ma jàppe sëñ bi man maa ko xam li ma jàppe sëñ bi man maa ko xam te yàlla mi nga xam ne moom laa la bàyyal te moom rek moo xam li ci biir xol yi yàlla na yàlla atte lii ci sama biir xol fas yéene naa ànd ak yow ba illaa yow mi diin xanaa sama ruugi rot. te lu ne. amul luñ ma waxul mi ngi nii sëñ bi xam na ci dara. sama téléphone bii mun naa leen ko génne léegi ngeen déglu yàggul dara jigéen woo na ma fi. mooy femme boobu femme boobu indi woon xale xale bi te mu ne mille jinne moo ne xale bi jinne jinne mille jinne moo nekk si moom. femme bi woo na ma ne ma yow kese laa dégg ngay wax naan cer na Thierno Moule tele laay wax mu ne ma yow kese laa dégg ngay wax naan mu Moule faj na la. ma ne ko dinaa la yónnee vidéo xale bi ma jël vidéo bi yónnee ko ko parce que dama filmé xale bi ma jël vidéo bi yónnee ko ko xale baa nga nee macha allah moo ma ëpp léegi moo ma te ñii ñëpp gis nañ ko gis nga faam bale toog xam na ci dara ñëw na ba suñu kër ba gis xale bi nday Marème Ndiaye mii mi ngi nii soreyaan taw ñu ñëw na ba suñu kër gis xale bi kon macha man aw ma sa fay saw yàlla mi nga xam ne moom moo am sa fay yàlla na ma leen fayal association bi nag ci laa bokk ne du toujours laay mën di dugg wala may kii ndax benn loxo laa man ak xale boobu ñoo fa nekk ak sama yaay ak sama doom bu góor ñun ñooñu rek ñoo fa nekk. loolu moo tax man maay def yëpp loolu moo tax ndax xale bi sama doom bi day jàngi loolu rek moo may téye waaw maa ngi leen di baalu ak yéen ñëpp waa di ñaan yàlla yàlla defal leen jàmm. lii li ñuy wax ci tubaab il au service des populations te lii defe naa ni mu Moulé yàlla moo koy fay kon président Macky Sall bu loolu moom it yàllaa koy fay koo xam ne day jël alalam. di di leen jox xaalis di leen jox lekk boole ci di leen faj waaw kooku kon defe naa kenn moo ko gën a nekk citoyen dem na ci ba jeex tag waaye nag ñoom état bi du dara de bu ñu defee sëñ bi def bu ñu defulee aussi sëñ bi def waaye doon na rafet rek citoyen boo xam ni yàlla da ko may may ko lu mu mayul kenn ku mel ni le président de la république fekki sa ko ci mbir mi kon nag ñu ngi leen di jaajëfal euh, di leen jox dig daje ci yeneen i yoon di wax ni lu mu lëndëm lëndëm dañuy xuus jaar lu mu lëndëm lëndëm dañuy xuus jaar lu mu lëndëm lëndëm dañuy xuus yàlla dogal nday Marème bi mu ñëwee waxanteeg sëñ bi keroog ba nga xamante ne war na yëkkati la mu ko la waxante woon mu jox ko ko bi mu ñëwee di ko jox sëñ bi da ko ne def naa ko àddiya yonent bi yàgg pour dëggal rek ne sëñ bi du xaalis moo ko tax a xaalis yi teelu ko gis nga kii su mënoon wax dina wax lu bari mais man xam naa ko bu baax dafa nekk nit koo xamante ne yàlla mën a may ko pour mu mën a wax cinq cent mille la sëñ bi yëkkatiwaat ne ko nday mare mu ne ko naan mu ne ko dama ko def addiye yonent bi kon kooku xaalis tax koo jóg xam nga dafa am loo xam ne ñun dégg lañu war a def dégg wax nii neex na de mais dégg moo am solo nit ki buñ lay wax yow da ngay jéem a dégg liñ lay wax nii lan la man doomu lébu laa loo ma wax rek xaw naa ko xam loo xaw a defit soo xoolee rek sa regard xam naa li ngay xool lan la su ma amul woon lu ma gis ci Thierno Moule man kenn du ma gis fii li ma fi dëj man maa ko xam ak yàlla ak yonent bi asalaamaaleykum maa leen di nuyu di leen ziar di jox ku nekk wàccuwaayam di jiital nuyoo bi suñu xalif général le roi médecine traditionnelle du monde le roi suprême di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér gu yaram di ko ñaanal yàlla yàlla na suñu borom gën a taawi fan yi yàlla na ko suñu borom gën a dooleel yàlla na ko suñu borom gën a kàttanal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu suñu borom defoon benn rek yàlla na ko dooli téeméer ci moom waa association bi nag kontaan nañ ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax a baax tey bi ñu fi yeenu see suba ba léegi lekk naan amul benn xeetu berndeel bu nekk boo xalaat rek suba ba ngoon jot defal nga ñu ko. te dañoo lekk meele ba mu des lekk yaa ngi ne amul loo ñu defalul ñun dañoo sant yàlla comme sànq maman Tunkara nu mu ko waxee danga ñoo defar ñu si bëri amoon yenn jikko yi jikko yi dafa changé. te li nga wax sànq nee nga ku nekk sa taalibe bu dëggoo bu la oowee foo jaaxlee boo ko wooyee wuyu si ko te muy dëgg ndax muy benn ci man man keroog bu ma fi jógee rek. am na si koo xam ne tàggu na ma ba ñëwee ma kanamu Alseeni naan ma baay baay maa ngi dem am ñoo xam ne mbooloo la ñëw kenn ki di xeex man ba ma daane ko ci biir xeex bi dóor ko ba daane ko ci biir xeex bi daaw ma nelaw guddi ñemew ma woon ba ma la xamee laa ñeme macha allah di gën di sant yàlla man de sant naa da dégg naa ci lu nekk nag damay wax youtube la ñëpp dañ koy seetaan TMS bi ñëpp a koy seetaan am na sama benn xatu jëkkër boo xam ne dem na ba dafa découragé loo sama jëkkër wallaahi wal ajim nee na ma bës bu la Thierno fajee ma teg sama kurus gi ma jël yóddu wallaahi te xam naa ne bu soobee yàlla ñun dinañ am ndam ci kawam dinañ am ndam ci kawam ba démb moo si mujj waaw wallaahi lii la ma wax wal azim ndax man li tax ma jàpp ko man maa ko xam man sama bopp ndax man durant 13 ans amul sëriñ bu ma demul amul dëkk àll séeréer bu ma demul ma ne sama borom kër dina ma seetaan dina ma gis mais heure bu ma ñëwee ci sëñ bi ak kiraama bu may gis ma gént mu jénn li nekk ci man te dara xewagul lu ci bëri wallaahi wal azim di ko sant di ko ñaanal waa association bi ñëpp sant nañ la man Ndeye seen Moule de man man jàpp naa te dootuma bàyyi te li tax ma jàpp la man sama bopp man xam naa ko sama biir xool maa ngi jégalu bu baax si kàddu yi di baalu ñëpp ak si barke yonent bi sallallahu alayhi wa di sant yàlla tey gis bi mu la gis dama naa tëdd guddi du ma nelaw dama daa tëdd guddi du ma nelaw maay keroog bu ñu jokkontee laa commencé di nelaw keroog bu ma duggee ci groupe bi laa sant yàlla ndax nit ki boo santul yàlla doo sant ki nga xam moom wala dafa lu baax nit ki bu la defalee lu baax ko sant bu nga koy gis waaye Sénégal dafa dafa yéeme dañuy balaa ñoo wax mbaaxu nit bàyyi ba mu génn àdduna te loolu rafetul nit ki boo santul doo sant kenn dangay sant nit ki bu la defalee lu baax danga koy wax bi nga koy gis te yàlla rek a tax ndax jëf ku ko suul suul sa bopp nit ki bu la defalee lu baax da nga ko war a wax te yàlla tax ndax xol lu ci jógee rek ci xol lay dellu te Thierno Moule Niang dañ lay sant panel bi ci nekkee ba léegi sant yàlla léeg dug jinne yi dañuy woo dañuy menacé mais sant yàlla duñu tiit duñu ragal léeg dañ may envoyé vocal ñu ne ma diw nangam ak nangam ma ne leen xoolal di nga ko bàyyi ci naa wala ci naa wala juróom-ñett ci Thierno Moule dugg ñett juróom-ñett la laay wax. ndax nit nit ki lépp looy def da ko war a gëm bëgg ko te yàlla tax te nit soo gëmul dara dara mënu laa gëmloo dara te boo ànd ak mu Moule gëmoo ko it doo dem fenn jaru sa ngay sono sa bopp waaw Thierno Moule wax na ko waaye dinaa ko waxaat man li may ñaan association mooy kenn ku nekk si ñun raf nga raxas sa xol raxas sa yaram te fas yéene xam ne am nga daal te am nga oto bu dul paan yàlla yàlla defal jàmm Thierno Moule jërëjëf. sëpp lo L'homme des l'homme, l'homme de li ngeen wax fi yépp ci Cerno muy dëgg it balaa Cerno ñëw dama leen ne ma ne leen Cerno jàpp ngeen fu dëgër te ngeen jàpp fu dëgër te dëggu ndax ku dëggu la yonent xam Muhammad di ngeen gis njëriñ te yéen ñi fi teg seen tànk te yéen ñëpp seen aaju faju na lii laa leen wax balaa Cerno ñëw Cerno ñoom damay tukki damay tukki ñu may xeex géwél yi di xeex keroog bi ñu ko tëggalee fii Kora ñu dugg si néeg bi maag sama doom mi mag ak sama sœur man ne ko Thierno damaa bëgg a tukki damaa bëgg nga ñaanal ma butel bii la ma jox mu ne ko di nga dem fi nga neex maa ngi nii fu ma neex laay dem semaine bu ne fu ma neex laay dugg Afrique fu ma neex laay dem te fu ma dem ma woo Alfousseyni ma ne ko Alfousseyni neel Thierno maa ngi dëkk béréb sangam moo tax ma fii raar Thierno yal na sa jàmm yàgg Thierno yal na la yàlla iir aar la cerno tey bi ñu ñëwee togg yi añ yéen a ko waral ganaar yi tey yéen a ko waral jus yi yéen a ko waral ndox yi yéen ko waral boisson yi yéen a ko waral kon cerno bu yëkkatee enveloppe delloowaat leen ne seen paas li ngeen mérito la cerno xaalis jaaxalu ko cerno xaalis da koy fekk ci néegam or or da koy fekk ci néegam jamaan da koy fekk ci néegam kon bu yëkkatee lii jox jox leen ko yéen a ko mérito seen ànd yal na yàgg yal na nu Cerno yal ko yàlla iir aar ko suturaal ko bàyyi ko si kanamu njabootam ak képp ku am yaakaar ci Cerno nañ dëggu rek sopp lu ye fula fula la jigi tetiñala fola sirimanja ni ɗum na kome nana diya jamaɓe ye fola sirimanja ceerno sowwon kila jigi tetiñala fola sirimanja fuladon na ko mena asidiya jama be ye fula sere waja ye fula sere waja cerna barika